Ce que fi indi de façon concrète c'est ñëw jàppale projet yi nga xam ni maanaam teg suñu loxo ñun tamit projet yi euh, patron euh, euh, le capitaine Sow meilleur MAC parce qu'aujourd'hui, on parle le terme prison est banni on parle de MAC maintenant parce que toujours dans le souci d'humaniser Sow dañ avons xaarul kenn dafa déjà commencé commencer ay projet ak doomi ma rafetlu ko lool motax tax ñun dañu ñëw accompagner ko ñun tamit duggal suñu loxo ci projet yi nga xam moom la am pour améliorer les conditions d'existence bu prisonniers yi ci ci ci ci mag bi quoi loolu moo fi indi tay waaw projet yi Mbour defe ni am na yu commencé ñëw mais légui dafa am état bi nu muy doxalee chaque fois que am nañ un projet d'infrastructure bu am solo dañu duggalale ci biir yenn conditionnalité yi maanaam ku fi ñëw di fi tabax tali boy dem faaw nga defaraale école bo xamni ni na faaw nga defaraale également hôpital wala dispensaire wala nga benn lycée bu nga defaraale ko donc ci lu mel non nak lañu waxtaan ak ministre El Hadj Omar Youm mu d'accord ci principe bi di ma vraiment mom en d' na joxe instruction yi service technique nga xam moy mooy route moy yenen yi pour au moins bu ñuy exécuter travaux yoy ñu xalaataale prison bi nga xam soxla nako aujourd'hui parce que euh, sànq ma ngi discuter ak euh, le capitaine Sow moy expliquer ni ma vraiment y a une surpopulation quand même au niveau de la MAC de Mbour donc yoy ñu ngi ciy xalaat man personnellement amna ay projets yu may xalaat yoo xam

Euh, ñoñu nak pour jappalé len il faut condition yi ñu fi nekkee ñu améliorer ko. dañu xëyoon tay dimanche bi ñëwoon fi poste de santé bi indi won fi une modeste contribution constituée de de médicaments euh, loolu nag euh, ça entre dans le cadre de finale bi nga xamni mom lañu wara jouer tay tay ma nekk parrain bi muy muy finale zone 4. kon ni ngeen ko xamé rek c'est une logique parce que depuis presque semaine bi vraiment amna ay action yu bari yo xam def nañ ko ci Mbour ñun dañoo bëggoon.

pour le bénéfice des populations de Thios, disons de Mbour de façon générale. Ce li ma motivé nag mooy euh, yaakaar naa ni doomu zone 4 euh, dirigeant au zone 4 là, parce que man sama produit nawetaan là. nekk naa fi secteur général ASC Jant aujourd'hui je suis le président de l'ASC Jant donc si je demee ba jamono ba jamono vraiment waa zone 4 ñëw seet si ma ni ma dañu bëgg ma nekk seen parrain damay sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ay at a ngi lu yàggul lool dama doon toog ci grande yi di seetaan wala ma daan tëb miir daanaa ko def sax tëb miir di dugg pour seetaan football su ma demee bañ may def parrain nag damay sant yàlla di sant également sama kilifa gi nga xam ni moo ma teg position boo xam ni xëy na tey zone 4 xalaat ma def ma parrain man nangu ko accepté ko ci xol bu sedd buy sama ministre gis ngeen ko nii tey mu ñëw accompagner ma kon vraiment je pense que lu mënu def leneen lu dul Nous devons porter plaidoyer parce que stade effectivement nous nga fait, waxee mais loolu plaidoyer il faut ñi ci impliquer les autorités politiques les autorités administratives vraiment les autorités également du football le président qui est là le maire il faut que nous japp pour que vraiment plaidoyer avec le ministre des sports avec le président de la république nous puissions ci stade nous réhabiliter parce que xam ngeen GMJ ñu ngi ci jëm bientôt te Mbour yaakaar naa ni duñ dem bañ egg ci Jeux olympiques de la jeunesse yi stade bi mel nii donc fii Mbour bu bi sax man dama jàpp ni dafa war a wu d' investissement public yu am solo sur tous les plans muy ci tali yi muy hôpital bi muy ci lycée yi muy leneen lu ma doon parce que Mbour mérite na loolu lépp